kàttanu yàlla ak yàlla bi ñu ko liggéeyee. ñëw ci combat VIP yi nga xamante ni moo fi jotoon taxaw newoon nañu combat yooyu bokk na ci combat yi nga xamante ni moo suqali làmb ah waaye nag euh, yàlla baax na bu bu mu ñëwee ci combat Modou Lo Ama lan nga ma ciy wax lan mooy seen avantage ak euh, lan nga ci gis combat boobu. na njar ndeem la diggante Ama bale ak Modou loolu boo ko làmb soxlaa du tey démb la woon lañ ci commencé débat. képp kuy nitu làmb yaa ngi toog di bàyyi xel naan Ama ak Modou Lo xaw ma kañ la ñuy daje mais làmb jooju kenn du ko lijjanti yàlla dogal na ni nag làmb ji taxaw na nañ ñaan yàlla yi jeex ba làmb ji ñëw mais naa la xamal lenn de làmb jooju dina neex dina metti li dina neex dina metti mooy ku ci nekk dafa am foo teg sa bët ku ci nekk dafa am foo jóge Ama Baldé dafa am ci lu rëy lum jóge Pikine gi yëpp yaakaar ko moom gëm na ni moom lii reefam yëpp mooy doon roi des arènes Modou Lo nag moom it dafa am ci lu mu jóge ndax dafa dafa am ci ci ci defet bu mu jógee ba pare ñëw yor titre bu ñëpp soxla te defet bi mu jógee donte mu ngi ci roi des arènes mais li ko gën a metti ci carrière loolu da cee bokk te ku ne xam jël bi ko Balla Gaye daan te ku ne xam na ne Balla Gaye ak Ama benn la lundi ak mardi la bis doxul seen diggante kon dafa mel ni Balla Gaye lay bëree papa ma dool la ci dafa mel ni Eumeu Sène la jël revanche ndax moo andi woon Eumeu Sène ko daan ko mu andi Balla Gaye Balla Gaye daan Modou Lo moom mu ñëw jàkkaarloo waat ak kii di Modou kii di Modou Lo mu ni làmb jooju làmb ju doy waar lay doon maa ngi seetaan fan yi seen image ku ci nekk yaa ngi wane sa bopp ñu ngi ci ay liggéey doy waar di leen wax ni daal. bi nga gisee image su gis image su Ama Baldé noonu la gisee ñoom ñaar. waaw mais loolu laa wax ku gis ci yow état ndax man li ma li ma leen di expliquer li ma leen di wax mooy man Ama Baldé dama koo xam ndax fréquenté naa ko bokk nañ écrit mais da doon yor état bu doy waar diis bay direeku mais maa bi dama ko gis mu yor état boo xam ne dafa suubul moom yaram vivacité mu wër ma ne kii mu ngi liggéey endurance ak rapidité ak vivacité te Modou loo ku bëgg a moom foo nga indil ko. est-ce que est-ce que vivacité boobu oyof boobu. ak diis bi mu tàmmoon est-ce que bu àndee vivacité dina ko enranger. mais xam nga làmb fi mu toll ku ci nekk da ngay xool làmb laaj ndax yaakaar naa ne man du bokk ma ci staff am Baldé. mais doon bokkoon nga ci ñi nga xamante ni doon nañ contact ak. doon naa moom ñàkkul ni moom làmb ji mu toll nii. am na fu mu ci teg bëtam ndax. nit ku ci nekk ci li nga nekk am na ñu la ci wër ñoo xamante ne ñàkkul ni sax ñoo la ci ëpp xam-xam te ñoo gën a xam li gën ci li nga jëm moom staffam xam nañ lan moo gën ci làmbam moo tax ñàkkul ni ñu koy liggéeyloo nii comprendre nga ndax man fekkee naa ko moom Malick ñaa muy préparé ñëw ñibbi si samedi dimanche lundi ñu dugal ko ci écrit bi di ko physique loo mu naan ma général toog naa trois mois yoo xam ne soo yi may def nii def ma ko saal rek lay dugg ak yooyu noonu mu ñëw gars yi tegaat ko ci mu wóor ko ni làmb jooju dafa am lu mu ko jaraloon te ba mu ñëwee résultat feeñ na kon bii tamit mu ñëwaat ñàkkul ni ñoom staffam am na lu leen làmb ji jaral mais Modou Lo saa ne tamit dafa doon mbër moo xamante ne da koy gis di ndax lii lii bëggal lii bëggal ay supporters moom mooy mbër mi saa bu ñu ko gisee rek nay nekk ci état de physique bu baax te Modou Lo chaque instant da nga koy gis day maintenir forme day nekk ci état bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mu war a ni kon ñoom ñaar tey seen làmb du yomb ndax Modou Lo day ndaanaan bëreeg fii ku ne Ama Baldé tamit di ndaanaan bëri fekk ku ne di la wax daal li ci mënut a ñaax mooy balaa bëree di am dinañ xeex. xeex moom mu cee ñàkk. yaakaar nga ci li ma gis ci ñaari mbër yëpp xeex munu see ñàkk da ciy am force boo moytuwul sax dem ardo ñëwaat am ci. Eh, kon loolu dina neex. day neex nañ ñaan yàlla laf cat rek làmb ji suñu borom yóbbu ñu ceeg jàmm ndax làmb jooju day indiwaat làmb quoi. boobu neex na waaye damay wàccaat suuf tuuti ñi nga xamante ne ay révélation lañ mm-hmm. euh, muy guy gi ak rëgg ndax ñoom ñaar seen combat gis na ni avant muy taxaw ak lu ne am na ci. Mm-hmm. dégg nañ ci Lamine Samba dégg nañ ci guy gi dégg nañ ci rëg xas-xas yi amoon sa diggante yow Fils de Balla am na ci ba làmb ji daanaka ñu ci bàyyi woon xel sax loolu loolu tax na mu bëgg làmb ji taxaw làmb ji taxaw yow nga nekk koo xamante ni su ma jumumus ngaa bëri rëg ak waaw léegi nag làmb jooju noo ko gisee ndax guy gi am na fu mu nekkoon bañoon na ko jël mais wax ji xas-xas yi baax na ci làmb li may wax chaque jour rek wujj ci am ci lu mu amul rek lu nekk rek du dem waaw ba tax na rëgg guy gi gis na loolu tax mu mu jël combat bi noo gisee boobu combat. noo combat bu neex combat bu neex ndax ku ci nekk dafa am loo jot wane xam nga souvent dañ daan faral di wax naan mbëru simple yi mu néew ñu arène. buñ ñëwee arène dañuy waaye di ndax duñ ñeme dóor wala duñ nangam Reug pour prouvé ci bëre simple ba àdduna yëpp nangul ko. non si Reug pour prouvé ci bëre simple ba ñëpp nangul ko ko mu ñëwaat ci bëre dóor yi. prouvé ci jël fi ay mbër yoo xam ne ku ci nekk bu koy jël dañ naan sa dina ko dóor mu ñëw day dëggal boppam ci xeex yi bëree daan ba làmbam bu mujj digganteem ak Gris ni mu ci wanee boppam mu doon moom mbër boo xam ne mu ngi wane boppam guy gi tamit ba mu fi doon doon mbër boo xam ne ba muy soog a ñëw dañ doon wax naan doole rek la am mënul dara benn kale reenu bu la ko deful mais nga xool combat guy yu mujj yii da lay jàpp déclencher la mbot yii da lay jàpp indi la bëre nga gis ni bëre kon mu ngi ci yaramam mu doon mbër boo xam ne moom it wane na boppam ba Sénégal gi yëpp nangul ko ko ndax guy gi kum dajalaat ak noo munti toll di nga ko bàyyi xel ndax sañ-sañ bi mu lay indil loolu nag ñëw daje ci ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dafa am sañ rëg-rëg dafa am sañ guy gi dafa am sañ-sañ rëg-rëg bëre bi dafa nekk ci moom guy gi tamit bëre bi dafa nekk ci moom mu doon ñaari mbër yoo xamante ne daal xam naa ni ak lu mën a xew làmb ji ci bëre lay mujjee mais est yaakaar nga yaakaar dina am xeex parce que xas-xasloo bi ñu ci andi nii ragal naa ne duñ ñëw rek jàppante. rëg bu xeexee buggul xeex. bu xeexee. bu xeexee buggul xeex lu mu mën a am bëree ko ko gënal guy gi bu xeexee mënul xeex lu mën a am jàppante ko gënal ndax jàpp na ne lépp lu mu war a am ci làmb jàppante moo koy may. mais ñenn ñi dama dégg ñu ne bu jàppante amee rëg-rëg la enragé est-ce que loolu nekk na loo te neex na dégg ci en tant que ñoo xam te day dund làmb. waaw mais xam nga xam nga ku ci nekk ci li nga wane lañ lay gisee rëg dafa mën jàppante mais tam bu ñu fàtte ni tamit guy gi mbaru jàppantekat la de. fu jàppante day dugal boppam nengeeñ loolu fooram la kon ñoom ñaar ñëpp ay jàppantekat lañ làmb la yoo xam ne daal xam naa ni buñ fi yàlla bay ak jàmm daal làmb la juy neex daal vraiment di wax que le meilleur